<laughs> Aïcha, on y va au 88 628 17 27 88 676 08 08 ma dem seeti Kouthia Abou Bilal Kouthia maa ngi lay nuyu <coughs> waaw Kouthia maa ngi lay nuyu xam ñoo nekk ci plateau bi di nuyu Pape Sidi Fall bi décor ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci machine yi caméraman ak décor ñëpp daal ñu ngi leen di ñaanal euh, wax dëgg yàlla jàmm gu euh, mot sëkk fan bu gudd ak wér gu di ñi nuyu nag euh, ñi nga xam ne ñooy invité d'honneur tey ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau bi fas yéene ànd ak ñun Pape Sidi balaa tàmbali nag dañuy def promotion li nga xam ne mooy Soboa yaa ma koy présentel tey ñëw fii ci li nga xam ne mooy plateau encore plus bi daal indi lu doy waar mooy toog ananas bu ndaw bi nga xam ne nag mun na doon gute goûter suñu ay doom bu ñu neexee ñun tamit individuellement individuellement bu ñu toogee di ko siré te nànk top ananas bi macha allah da nga koy naan sa gémmin di xeeñ ananas koo waxal mu xam ne wax dëgg yàlla am na bu mag bi nga xam ne mooy taaw mooy top na boo ndékkee ba pare a nga xëdd ba pare naan ko jox li nga xam ne mooy vitalité énergie bu am solo moo tax bàyyil waxi ndékki ak ko doon ñaan far am bu ndaw mooy petit modèle bi bu la neexee nag nga daal koy def sa frigo ba mu sedd guy daal koy euh, ndogo war a nga xëddee ko waaye daal modèle bu ndaw bi moo mujjee génn di fi mu too petit modèle bi nga xam ne nag wax dëgg yàlla mooy yëngal jamono di euh, limonade la gazelle dañ ko am ci version bu mag mooy taawu kër gi nekk loo xam ne wax dëgg yàlla balaa muy neex nga lekk sa ginaar daal di koy digérer war a nga lekk sa yàpp xar daal di koy digérer war a nga nekk sportif bëgg eh, boo demee ba ñëw daal di noppaliku naan ko mën a géex wax dëgg yàlla moom mooy boisson yi nga xam ne soboi coloré ak diggante ñu nag Pape Sidi yaakaar naa ne euh, ci euh, koor gi ñu jëm mhm. ne mooy topp euh, topp orange bu ndaw bi nga xam la baax na ci a parce que da ngay sentir ne pomme ngay naan moom moo nekk nii en bu neex ba pare nag dafa gaaw a sedd ba pare guu day des sa gémmiñ bu ñu foofu nag xam nga ananas bi am na tamit te moo def bu mag bi yooyu yëpp sa amoon moo ñu ko indil di la gazelle ànd ak ñun ci li nga xam ne nag moom mooy seen émission tey nag Pape Sidi dañuy seeti Yaya Jammeh dalal nga ko fi yoon nag ba mu ñëw wax ci li nga xam ne moom mooy nattu bi Macky Sall teggi léegi nag yàlla def na jomaay <laughs> gañe na Yaya Jammeh mu ngi teelu say laaj pour tontu la ci li nga xam ne mooy nan la gisee nan nga ko yaakaaree moom lay gisee élection yi bu mu jàllee ak li ci kon Pape Sidi ñu bàyyi la nga laaj sa laaj bàyyi la ki nga xam ne mooy président Yaya Jammeh ci tontu yi nga xam ne fas yéene ko jëmale ci yow. voilà habillement bi rafet na déjà président Yaya maa ngi lay nuyu di la eh, nuyu Fall di nuyu ñëpp balaa nga ma laaj maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp oui di leen gërëm di leen sant <laughs> eh, yàlla waaw. léegi yow lay nga laaj ma ma wala si li nga xam ne moom laa xam Sénégal. waaw <laughs> président man kay sama laaj du yàgg dama lay laaj noo dundee victoire u Diomaye Faye bii nga xam ne mooy suñu président bu bees ñun waa Sénégal. yaa ngi may laaj ne nan laa dundee lii ni ma dundee victoire bi he waxoon naa Macky <laughs> ne ko yaa may gëna ma dugg ci saret yaa may gëna ma dugg ci mbaam yaa ngi may gëna ma dugg dem Guinée bi Guinée équatoriale waaye yow yaa ngi am lu lay xaar tey dama kontaan ndax bi ma dégg ñu ne Diomaye dafa gagné dama ne eh lii yàlla rek moo ko mën <laughs> waxoon naa la ko. <laughs> non non yéen neeg la borom moo cee faral yow li ma jaaxal mooy xam nga man lu ma reetaarloo. Mhm. dama ne hey. Eh, mhm. mbër bi mbërewul. mbër bi mbërewul rakku mbër bi moo bëre. <laughs> apprenti bi yebul de chauffeur bi ci boppam. moo wax apprenti bi yow dawal. te apprenti bi xëy ne chauffeur bi ba koy xëy dawal rek teg ko ci yoon. kon yow Macky Sall lii bu la bett <laughs> waaye waxoon naa la ko non because nit da nga nit da ngay def loo xam doo am problème. dëgg la CEDEAO li mu barki Demba tey yaa ngi yaa ngi wér ci xeex bi yow kese ana ñi nga àndaloon ana waa CEDEAO du ñu la woo wax la massa dañu lay fàtte tey jonaay dañuy jël teg ko uh-huh. aduna nii rek la kon Pape Sidi man li dund man. Mm-hmm. si victoire jomaay bi xanaa dama ne xaxataay <laughs> ne lii bi ma toogee suba ne suba jabar eh toogal nga déglu uh-huh. daa dega jege jege dega affaire bi di wàcca uh-huh. affaire bi di wàcca affaire bi di wàcca affaire bi di wàcca ba nekk ci suuf danga dégg jomaay mu ngi yeeg jomaay ngi yeeg balaa la asamaan <laughs> loolu laa ciy jàngaat mooy nit àdduna yàlla. Uh-huh. yàlla bul xeeb nit bul toroxal doomu aadama. Mm-hmm. parce bi ma toroxalee nee naa yàlla damaa lay ñaan fayul ma. Uh-huh. parce que Macky Sall dafa nekk Sénégal waroon lijjanti Sénégal muy ñëw di dugal biir indi armée <laughs> Sénégal ñuy lafar lafari biir Gambie di ma fag indi ay problème tey mu nii <laughs> alamu la <laughs> waaw loolu on ne doit jamais rire du malheur des autres mais man bëggoon naa xam ndax euh, xam <laughs> man président yow ak CEDEAO ak président Macky Sall man xaw ma seen problème bi kañ lay jeex rek mais yow ndax xam nga Diomaye loo xam si président Bassirou Diomaye Diakhar Diakhar Faye son excellence. ci Diomaye li ma am ci Diomaye man xam nga because mhm. man tubaab bi defuma ak ñoom nee na. Mhm. bu doon man ma nekk Diomaye premier first bés bi ma njëkk a wax du ma soxla costume. Sabador laay may ak Tengadé. dëgg la lay maye ak tengaade waaye ne man tagoonaa tubaab yi li ma gëm mooy Séné Thomas Sankara la la wax nañu consommer Burkina be na Sénégalais yi di consommer li nga xam ne moom la ñuy defar seen réew mhm. muy artisanat muy menuisier muy mécanicien bi muy lépp loolu la war jël bu teg ko mu naka kon kon li ma doon def Gambie rek man fa nekkee mhm. dama wax ne loo xam ne tubaab da def dañu ko jël ñu takkoon le dëgg la xam waaye maa ngi gis soow because ci réseaux sociaux yi gis rek ñu war a eh, sa waay mënul sanse sa waay dafa loo leen buga lan ngeen buga mu naka fi di malastiku di di yuutal ay tubay du ko rek président la soo bàyyi leen ba ci kanam bi la joxe bu dee caaya saaru mbaam laa sol parce que da nga wax cenc da war xëy man loolaa gis de lépp loo xam ne Macky Sall da ko son rek bàyyi ko. Mhm. moom dafa ñëwoon sax indi daga loxo fi daga loxo fi moo tax ak ke nekk fële seexam bi nekk foofu Gambie. waaw moom ñaar lu nduroole. Ah. loolu mooy wane ne yow sa loxo dafa daga. Ah. nit da ngay sol lu jom. Ah. loo xam ne bu nit ñi gisee xam ne kii wax dëgg yàlla nit la koo xam ne ko mën a joxe la. joxe. dafa nekk ci xol jamono nag li ma lay xamal mooy. Uh-huh. bul am loo xam ne da nga solel caaya. <laughs> solel paaru mbaam bu la neexee bul lal. parce que lan ngeen bëgg a. Uh-huh. Afrique ko bëggee defar dañu def consommer li nga ne mooy Afrique. waaw xam uh-huh. si mooy sama xalaat ci jamono. mais man xam euh, maa ngi lay dégg yaa ngi waxtaan boobu ba léegi président Yaya et JJ docteur tout puissant Jammeh. mais dama bëgg a xam instant yi nii lan nga yëg sa biir xol président. excellence man maa yëg tey <laughs> man damay laaj Macky Sall Macky Sall maa ngi dégg ñu wax ne eh, Macron da ko utal liggéey liggéey càq-càq la. càq-càq lu tax liggéey càq-càq la moom Macron mu koy yónnee na ko waaw da dem fii nga doxal ma lii da nga nekk suma jànka da nga nekk suma mbindaan yaa dem Afrique yaa dem Europe. yow kon ba léegi jugoo ci loxo tubaab yi yow da nga waroon toog nga nas li nga ne moo la dal nga jàngale ci waaye doo dem ci tubaab xale bu ndaw mu lay yónni nga def Jakarta cak cak jóge fii dem fu nekk fu ne nga fa <laughs> waaw naa la ko da nga teggi natu natu bi nag du yow de so because li ma la nga gis loolu nga dunda. waaw te ko dunda yaa sa waa ji nekk Gambie. yeah uh-huh. because people Gambia. fi may tëjee ak yéen mooy xool leen bu ndaw jomaay gëm boppam naka ci yoon yéen tamit da ngeen war def li nga xam ne moom la jomaay def. oui Yaya Jammeh ngeen fexe bu ñëwaat Gambie. Ah, ah. ngeen teeru ma. ah ah ngeen génnaat yéen ñappa. Ah. commencé Yaya nama naa la. <laughs> Yaya defee moom pata bi nalawkat bi dina ne maa ngi ñëw. te ku ñëw yëngal te ku yëngal yëngal te dama yëngu because li ma wax boo leen ko déggee li ngeen gis Yaya bi ma fa jógee ba tey ay tapale rek ñoo fa nekk ay tapale kat toppa tubaab yi Adama wutal ay tubay tana beer Adama mu ngi liggéey de ñaata tabaski yooyu yëpp ak ma am na fa léegi <laughs> <laughs> ma gisala léegi da nga dawal cak-cak Macron wala nekk nga yónni nga def cak cak because loolu rek nga mérité parce que yaa ma jëlee Gambie dugal ma ci avion yow ma Guinée équatoriale tey yaa ngi noonu ñu jëlee la ci cak cak nga dem France pour dawal cak cak ah, because Gambia people loolu laa wax ca lu ma la maa ngi gërëm ñëpp parce que di ñaanal ñëpp a jàmm di wax jomaay yow gaynde nga jomaay bul tiibu ragal loolu la wax Afrique ca kaw <laughs> Yaya président Macky Sall le président Yaya merci beaucoup d'être avec nous et de regarder cet excellent artiste Kouthia Abou Bilal merci qu'on retrouve demain dans un autre numéro de Encore Plus je vais m'asseoir juste pour saluer nos émérites et très grands chroniqueurs et invités sur le plateau balaa ñuy tàmbalee waxtaane li nga xam ne moom moo di mbiri actualité bi fii ci jotaay bi ñu ngi euh, beral ngërmaane ak nuyoo mboolem ñi nga xam ne suñu ay partenaires lañ suñu ay sponsor tey ànd ak di ñu gunge 88 628 17 27 88 676 08 08 saa yi bu leen soobee mën ngeen a jokkoo ak ñun à tout instant à toute heure à tout moment mën ngeen a woote mën nañu dugal kenn de temps à autre ñu may ko ñaar fukki fanweeri junni wala ñeen fukki junni ba 50 000 dépendra de la fréquence des appels donc continuez n'arrêtez pas